baax nañ ko moytu ku nekk ci feebar feebar boobu dañ lay tere nga maye ndax li ko waral mooy islaam yàlla dafa xàtte ne alal yi moo ko moom nit ki la jox priwiti muy ci def di dindi fépp mu ngi ànd ak sagoom bu demee nag bañ ragal mu nekk ci xaal boo xam ne mën naa am mu ngi waaj a tàggoog sagoom génn àdduna suba islaam daf koy taxawal nag yow na fu mu nekk nii dañ la xajru ki def pour ngay mën sopandeku ci sa alal manam, dañ lay dañ lay ban, dañ lay ban, pour ngay tek sa loxo ci sa alal di ci maye mbaa ci def yenn yi lolou motax ki xas ba febar koku mom ci xal jëfandeku ci alalam ay hatt yu bari mom la ci sharia tek ki febar dañ koy tere mu fase ci bit febaram ndax ñu ngi bañ mu febar fase kenn ci soxna de dé ci febar ba xagn soxna mi dono kon moo tax ki feebar su fasee dañ ko naan fase nga de waaye sa jabar jii de bu fekkee ne ci feebar bi nga dee dalay donn wax yu bëree ci nekk nag waaye li gën a wér mooy moom foog mu doon ndax dañ ko tuumaal ne mun naa am dafa bëgg a xeeñ kooku dono moo tax mu fase ko kon benn nangu caatey ki feebar ki feebar euh, du mën a maye comme ni ko waxee léegi. ndax su mayee alal jooju mu mayee ci biir feebaram dañ koy tuumaal ne donoom yi la bëgg a xeñ seen xàq moo tax mu defee noonu moo tax ki feebar dañ koy tere mu mayee naka noonu itam euh, wasiya euh, dagan na moom rek lañ daganal ci ki feebar mu def ko loolu moom yàlla moo ko may jullit bi ci mbaaxam ak ci kàttanam mu mën koy dabaatalee yenn rëcc ci bi mu demee ba xam ne dee taxaw na ci mayee lenn ci alalam waaye nag dañ ko limite ci ne bu mu paase nag euh, wantaa ci alalam kon loolu mooy euh, leeral gi xaju ci ki nga xam ne mooy jóg di maye dafa war a nekk mu kallaf dafa war a nekk borom xel dafa war a nekk jamono wér ba pare tegu ca na moom la muy maye tegu ca itam bu mu doon ne dañ ko pressurise forcé ko mu maye kuñ fekkee ne mu kallaf bi dañ ko forcé pressurise ko mu meree mu mayee ci lu duur sagoom su defee firnde ci loolu maye nga saxut kon nañ bàyyi xelul bu baax a baax a baax kon kii maye dafay maye ci ak dalam dafay maye ci sagoom loolu moo tax xadis gu ñu wax euh, Nu'man ibnu Bachir Buxaari yi mu ngi ko soloo euh, Bachir mi nga xam ne mooy papaam moo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jabaram bu ñu wax Amrata bintu Rawaha daf ko chartuhante ne daf ko may dafa may doomam dara muy Nu'man mu ne ko nag duma gëm ne may gi lu wér la lu mooy nga dem seddale ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ci yonent bi ne sama jabar doom jama am ak moom ñu ko wa Nu'maan may naa ko ci riwaayaa di benn may naa ko ab jéebéer muy jaam may naa ko jaam beneen riwaayaa di ne déedéet may naa ko toolu gaadin yaayam ne du ko gëm du ko seede lu mooy ma ñëw seede loola ko ba mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi ne ko ndax am nga yeneen i xale yu bokk nag moom mu ne waaw mu ne ko ndax bëgg nga ëllëg suñ màggee ñoom ñëpp ñu yem ci def la defal la lu baax mu ne ko waaw mu ne ko demal nga ragal yàlla te ngeen màndu diggante seeni doom man lii duma ko sedde sedde la ko keneen kon li ñuy bëgg a wax ci xisa boobu mooy ne jabar ji moo personnalise jëkkër ji ci yenn xisa yi liñ ko waxee ba mu joxe maye ga kon maye goo xam ne dañ ko def ci kaw pressurise googu maye islaam daf koy rijek kon ñu ngi lay tëj suñu programme di ko tënk ci ne kii maye mooy kan mooy mukallaf kon ku dul mukallaf du maye ki xel kon ku ànd du maye ki kon ki feebar du maye ki nga xam ne forcé wuñ ko kon kuñ forcé mayam taxawut yenn yàlla may ñu ak dégg ak topp ñu ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoo nekk ci technicien bi demee ne ki Chérif Fo ak itam jànke Dramé di ñaan yàlla subhanahu wa taala menu ñu li gën a neex ci dégg te mooy tànn la gën a sell ko yéen yàlla jëmbale ñu suñu diina wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman ye sɔngu sunkutunden hakili di ma mi y'a lonko ko kɔngɔ ani jawuya a tɛ kulo n y'a kɛ n'o la e si fɔsi faamira a bɛ la ka na i ka ma bɔ ni ma fatima min keta ta baari wala ko bonyata a la ka tɛmɛ ni nata a kuja wo kuja o kɛ ta i k'a

amanna min fan e naata lonko e aisamira mo jawo min te fatima lo wote andu ko nata wajabi kabiri ya kalamuta ko konole baala konole baala kono abdou kamina very soon bring you to my home ala nata aisha harje ke kendela mi yakano komi kamin fo drunk to nyale be laban mune warta ko zenam musa min keta fatima famate amanna fatima ko muñano fo aya bay kotota ko so ñilla bakan kuntumuru ba no hey. aisha ñi mu tiyata dima balete min be fintila atemela sponsors are invited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 ألم يعلم بأن الله يرى كلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا We thank Allah, the Lord of the universe. May His special peace, blessing and salutation be upon Prophet Muhammad wasallam, who was sent to serve as a blessing and guidance for mankind, uh, his companion, his friends and all those who follow him on the righteous path until the, day of judgment. We say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you our esteemed viewers. This ikra of course, uh, this is the first ikra we are having after the Eid. We say Eid Mubarak to everybody. Uh, this is the first ikra we are having and as you understand, this is a program that enlightens Muslims and non-Muslims alike about the fundamentals and key issues in Islam. I am Alhaji Abubakar Dabo, and with me tonight is Dr. Abubakar Senghor, the Dean of the University of the Gambia Law School. Doctor, welcome to the program. Uh, we allow you to introduce yourself, to, to, do the introduction before we begin the program proper, inshallah.